nan nga nan nga xoolee nan nga gisee euh, milieu boobu ak lan nga ci mën a wax. mais le football le football sénégalais doxul. football Sénégal. Mhm. doxul doxul. man wax naa si ay télé yu bëri que le Sénégal ne mérite même pas de gagner la Coupe d'Afrique. Mhm. parce que pour nga gagner Coupe d'Afrique première nation Afrique. Mhm. premier classement FIFA mondial Sénégal mooy pays amul stade. Mm-hmm. stade la joor la ñuy recevoir c'est même pas vingt mille places. Mm-hmm. la pelouse elle est pas bonne avec les milliards qu'on entend. Mm-hmm. on peut même pas réfectionner Léopold Sédar Senghor. on peut même pas réfectionner Demba Diop depuis plus de ans. on n'a pas de stade. effectivement le, le football local bi ñuy wax professionnel c'est amateur. amateur les joueurs ils touchent mille. ou soixante quinze mille tu restes quatre mois sans payer ou on peut te virer sans indemnité. sans droit. les équipe yëpp petite catégorie terrain suuf la ñuy jouer. et encore championnat bi il dure trois mois. le football ne, ne marche le pas. Le reste du temps, tu es au chômage. Mais le, le football, nous, nous, nous, nous, Europe, dans le football, vacances deux semaines, nous avons fini, continuer le football. Mm -hmm. décembre décembre une semaine nga am grande vacances juin deux semaines. Mhm. li si des yëpp yaa ngi entraîné di football. fii da ngay toog ay weer doo football mhm. six mois doo football nga bëgg nga bëgg a tolloog ñële. non ñun Guinée sax ñu tane Guinée sénégalais bu fa dem di nga recevoir di nga percevoir ay millions. fii ki ëpp salaire championnat Sénégal mënul am million te ñun ñu raw Guinée. pays yi ñu wër sous région bi yëpp. Mhm. ñëpp am stade. ay Côte d'Ivoire ay ay Mali ay ñi nga xamante ni dañu xam ay guerre sax raw nañ ñu te ñun mosuñu xam guerre donc je dis que ni eh, ñun ñi ni jiite gis nga football da nga koy jox ñi xam football ñi ko xam yéene ndax mu mën a dem voilà donc euh, le ministre du des sports Matar Ba wala boog euh, Augustin Senghor ñoom da nga da nga gis ni instant bii nii amuñu seen place fi ñu Sénégal dañuy politiser ñoom <laughs> Sénégal politique lañ tal ku nekk loo yóbbu wala loo kii. Mhm. ñoom ñoo la gën a xam ni. liggéeyuñu. mais bu ñu liggéeyoon bu ñu liggéeyoon amuñu esaat. Mhm. Léopold Sédar Senghor mi ngi nii tëj na yàgg na. boo fa demee yàqu na. Mhm. Sénégal arena bi ñu defar sax boo deux ans après boo fa delloo day commencé yàqu parce que ñun xamuñu entretien parce que li si war duñ ko def. dañuy defar nii mu rafet ñu inauguré politique dóor après génnaat nañ teer rek leneen ak leneen mhm. Sénégal noonu lay demee mhm. on est mal dirigé kon yow gis nii dañu war a am changement de mentalité qu'il faut à la place qu'il faut Aliou Cissé sama grand la football naa contre moom xam naa ko mhm. Augustin bi may voyagé bu mujj bi moom aéroport ñoo bokk vol moo ma indi mais man xaw ma faralaate dëgg laay wax donc Aliou Cissé da nga gis ni moom it fi mu toog amu fa place. ñun dañu soxla football boo xamante ne euh, day boo nekkee pay dafa war a feeñ mënoo nekk pay te du feeñ pay buy tâtonné mënul nekk. di làmbaatu mënul nekk pay da ngay am da ngay am base. nga nga joué foo joué ñu xam ne y a du beau yaa ko mën. Mhm. maa la mën dóor naa la mais pay boo xamante ne mënoo gaay mhm. loolu mënul nekk de. te ñun ñu yor ay joueurs yoo xamante ni classe classe mondiale la. Ah, mhm. parce que lii am na lu manqué. avec un très bon niveau mais Sénégal mënu ci génn. mais li ñu ça le problème est ailleurs. non Sénégal féppay metti mhm. euh, euh, sélectionneur yeeg staff beeg gis nga gis nga même même seen même ni ñuy wootee même ni ñuy woowee. Mhm. dafa am li si biir loo xam ne gis nga nit booy liggéey dangay def te yàlla tax. Mhm. da ngay tranché dëgg te yàlla tax mais yàlla moo la si fekk si. ñun naka la Sénégal ñun pelouse bi nga xamante ni léegi pelouse yi da nga koy jënd léegi tappi la. Mhm. gazon léegi ñun Europe dañuy football weekend bii. weekend bi stop ñu dindi yëpp ñu ñëw ñu lalaat yeneen gazon yu bees ñu football ñun ñu toog ñun mënuñu am gazon gars yi di wax naan noo stade yi mënul bokk ak stade yële te ñoom ñuy dawal ñoom ñi jiite foot football beek jiite ministre ak yooyu ministre mm-hmm. Sénégal moo dàq otol ministre en Angleterre. ministre mm-hmm. ministre France ministre Sénégal yi les autorités sénégalais mm-hmm. ñoo dàqale ay oto ak i kër ministres yi nekk Europe lu tax ñoom ñu naan pelouse fii bokk la pelouse fële. alors que nous un pays pays sous-développé on est un pays pauvre et dirigé par des milliardaires. milliardaires voilà. donc loolu cri de cœur la loo xamante ne nii ki nga xam ne mooy pro. ABK lancé na ko euh, peut-être que moom am na ci xalaat boo xamante ne nii yaakaar naa ni bu ñu defoon lii def leneen dina mën a gën a suqali sport au Sénégal. TV.